waaw salaamaaleykum sunu mbokk internet yi nga xam ne yéen a ngi ànd ak sbt média point com tey ñu ngi fii centre sac sirat bu Pikine seet si Pikine basket club taxaw ak ki nga xam ne moom mooy seen entraîneur Mathiam Mathiam sbt ñu ngi leen nuyu ngi leen di sant ñu ngi leen di fay bu baax di leen sant bu baax ci teewaay bi ci ñëw bi ngeen ñëw tey ci centre sac sirat wuy si waa Pikine basket club jërëjëf mu mel ni que Pikine basket club bu ñu ko waxee euh, tudd Pikine yëpp est-ce que mën nga mën nañ xam ñaata catégorie ngeen regroupé fii nii euh, Pikine basket club am na juróom-ñaari catégorie ñu nga xam ñoo fi ne ba ci sama ginnaaw moo am équipe senior fii boo xam ñi ngi waajal dem tournoi de montée donc ce qui veut dire que am nañu senior fii am na ñu minime am nañu cadette am nañu junior fii am nañu minime garçon am nañu cadet mooy ñu nekk fii ci centre bi ñi nga xam ñoo fi nekk yaa ngi dégg maa ngi dégg nga wax si biir sànq nga ne da nga am équipe boo xam dafa war a première division tournoi maanaam dafa war a compété tournoi monter. Mhm. waaw équipe a dem tournoi monter dañoo yéegoon première division wàcc euh, ñi ngi dem war a waajalaat parce que depuis trois ans ñi ngi dem tournoi mais daaw dañoo perte par goal différence particulière ren nag ñu ngi nii di préparer pour demaat tournoi monter bu war commencer le 2 ba le 8 incha allah donc moom la waajal nii ci kàttanu ku wax ku wax ku wax tournoi wax ay wax maanaam li nga xam ne moom mooy ay jàppale est ce que nekkul ne li tax ngeen wàcc deuxième division ngeen wàccaa saa yoo ngeen yéegee ngeen wàccaa est ce que nekkul ne maanaam jàppale bi moo xaw a des. waaw mën naa nekk ndax euh, bu weeso maire de la ville yi nga xam ni moom moo ñuy jàppale ah yeneen seize communes yëpp amul kenn koo xam ne ñu jàppale wala bonne volonté bu nekk biir Pikine bu jàppale Pikine Basket Club donc ñun dañoo yem suñ subvention rek mu des suñ subvention peut-être matalewul sax li nga xam ne moom la ñu war a am pour catégorie bi dem fa war a dem yegg fa mu a yegg ndax xale yi ci seen gannaaw sama ginnaaw dañ leen war di jàppale ndax xale yi bu ñuy ñëw dañuy paasal seen bopp xale yi daal bu ñuy baskete ñoom ñoo koy jëndal seen bopp donc bu ñu amoon vraiment moyen bu ëpp li nga xam ne moom la ñu maire bi di defal dañu mën a taxawal Pikine département bi équipe boo xam ne du mës a wàcc donc loolu lañ bëgg cette année loolu lañ bëgg taxawal équipe boo xam ni vraiment du mës a wàcc waaw loolu lañ bëgg. seize communes yi nekk Pikine yëpp tey bu fekkoon maire bu nekk am na loo xam ne warloo na ko ak ak li nga xam moom mooy Pikine basket club jàpp naa kon dina am dina am dina am benn kii boo xam ne solution dina am. waaw ndax benn équipe la ci département de Pikine donc benn équipe mu nekk département de Pikine euh, population bi mënuñ cee jàpp population bi ci boppam parce que ñun dañoo impliqué tout le monde maire yi ñi nga xam ne bonne volonté ñi nga xam ne Pikine am na ay cadre am na lu ne am na société am na lu ne. donc ni ñuy fexe ba ay Pikine di compétir benn niveau bi Pikine Basket Club mi ngi fi chaque année mooy jël deuxième championnat petite catégorie presque coupe bi ñu fi jox rek chaque année ñu rappelé coupe yi ñëw teg du am suivi parce que politique sportive bi moo des te politique sportive bi pour mu dem il faut que commune yi ak nit ñi ak population bi ñëw jàpp ci te xam ne xale yi jéggaani wuñu fii seen dëkk lañ dëkk pour am li ñu am fii la ñu jàngee ba mën li ñu mën. donc bu yeneen équipe yi ñëwee jëlit ñun duñu mën a téye ndax waa Pikine defuñu lu tax ñu war a mën a téye seen doom pour que ñu mën a toog compétir fii ci Pikine département bi donc loolu la. donc ci biir ci biir compétition bi ban jafe-jafe ngeen ci am à part à part autorité nga xam ne si nii donc ñi maam jàpp nañ ci ñi jàppoon si. waaw nii daal bu ñu euh, ñëpp jàppa bu ñu ñëpp jàppaatoon nit day baax ndax xale yi il faut que ñu motiver leen. ku xam sport xam nga ne am na motivation xale buy basket di dem ah da ko war a motiver pour boo boo bëggee. résultat nga motiver xam nga moyen moom bu amul motivation du am motivation bi amul résultat du am te il faut nga am moom moyen pour nga mën def résultat après résultat yooyu après si ngay soog a nag xale yi nga mën leen wax wala nga def loo leen li nga bëgg ñu defal la mais xale foo deful dara foo deful dara mënoo faa fekk dara donc noonu la. équipe nationale jigéen ñi muy góor ñi ci basket bi euh, mu mel ne que at yi paas yi yëpp maanaam résultat bi ñuy def si ci compétition yi maanaam dafa baissé wu la moo waral lool waaw ndax euh, liggéey bi ñu war a def pour équipe nationale ca kaw am dara dañ koo deful ndax liggéey bi mi ngi war a commencer ci suuf ndax gis nga loo jëmbatul loo loo récolte jëmbatul mënoo ko récolter loo jëmbatul doo ko góob donc bas sport ak lu mu mënti doon boo départul ca base ba jëmbat rek amaana li nga war a am doo ko am ndax xale yi ñoo ñooy war a def relève bi suba. waa itam pour nga am relève bu baax il faut nga am pépinière bu baax moo xam xale yoo xam ne ci suuf la rek nga commencé di leen tàggat pour mën a am dara donc loolu la. bu sans loolu rek mooy noonu noonu lay demee dañuy dem ba yaakaar rek après mu jeex waaw parce que bu dee amuñu lu ñu leen changé ci kaw ci suuf du du du mën a du mën a am dara noonu rek la demee. yow en tant que formateur lan nga jàpp ne mooy solution bi. solution bi daal mooy spond sport bi toog benn waxtaan def benn waxtaan bu rëy benn genre forum wala dara bu rëy jël entraîneur yi formé leen jël xale yi jox leen ay moyens parce que Sénégal ku xam Sénégal xam ne am na ay xale yoo xam ne ñu ngi fi. de vraiment dañoo am talent ñoo am talent mais bu ñu amul ku leen jàppale du mën a sotti donc loolu la. Uh-huh. fan yële déggoon nañ fi sa sa benn kii boo waroon def maanaam benn benn benn équipe boo xam ne mi ngi doon jéem a décorser pour nga pour nga pour nga corser leen mais après maanaam for naa dégg naa ne maanaam sottiwul daal. waaw man nag moom xam nga dama sos Pikine moo tax Pikine moom la sos moo tax Pikine keneen ku ñëw bu su Pikine soxlaa keneen ku ñëw da ngay ñàkk noonu laay liggéey parce que Pikine euh, vingt cinq ans foo ko bërëb boo ko def ah defe naa ni génn la fa du yomb moo tax man séentu ma feneen quoi jéem maa dem feneen malgré que Pikine fayu depuis ma ma fi nekkee ba léegi mosuma fi am salaire amuma fi benn salaire Pikine mosuma fay salaire mais maa ngi fi nekk ndax xale bu international bu ne génn na fi xale bu mën a basket bu ne génn na fi boo demee Europe boo génnewul 60 wala 70 yu jóge ci terrain bi ah donc mi ngi noonu quoi donc euh, ñun daal ñu ngi fii ci pour le moment di jàppale xale yi nga xam ñoo nekk ci gox bi ak banlieue bi voilà donc loolu rek la woon. donc ren monté bi ngeen di compétir lan mooy ambition Pikine basket club. ah ambition Pikine basket club daal mooy département bi ñu génn fi ay xale yoo xam ne ay ay cadre la ñu doon ay international ñoo xam ne tey monde sport bi ah dañ nekk nit ñoo xam ne dañ leen ràññee comme on a toujours l'habitude de le faire donc loolu lañ bëgg pour que xale yi franchement ñu jàppale leen. waaw ñun daal ndimbali lañ soxla jàppale bi lañ soxla bu ñu amee moyen c'est sûr que résultat yi dañu sûr xale yi occupation saine bi ñuy def ci ñoom pour que ñu bañ am benn débauche bañ nekk ci mbedd bi taxawaal bala ñu def leneen sport bee tax ñu leen koy jàppale te xale yi chaque ngoon ñu goon si fi 15 heures ba 19 heures donc bu ñu ñëwee rek ñu jàpp ci incha allah waaw. message nga am booy lancé fédération Sénégal bu basket. waaw ñu jéem a xoolaat mm, seen doxalin seen liggéey parce que loolu rek la. parce que ñoo nekk ci kaw bu fekkoon te waxtaan nañoo ak acteurs yi nga xam ñu bokk ci basket bi amaana dinañ am yoon bu gën a gaaw mais bu dee dañuy dem ak seen xel ñoom rek amaana dinañ juum parce que ñu ñi fi nekk pendant vingt cinq ans jëm trente ans ak ñu ñu fi jiitu ñun bu ñu boo dajalee ñu waxtaan rek dinañ am solution pour que basket Sénégal war a mën a jëm ci kanam donc j'aimerais bien que ñu toogaat xoolaat sport bi xoolaat basket bi vraiment ñu dem parce que xale yi Sénégal xale yi fi daan nekkoon ñëpp génn nañu ndax Sénégal aussi moo ngi noonu. équipe bi ku la ci fay cinquante mille tey boo da daqeeg moom ñaari weer ñetti weer après mooy loolu amatul lum la fay xale bi day bëgg rek di dem léegi il faut mu am jàppale donc loolu la. ñu ngi lay jaajëfal ñu bàyyi la nga tàggoo rek. waaw jërëjëf ñu ngi maa ngi leen di remercier bu baax franchement seen ñëw a ah, rafet rafetlu naa ko trop te bu am ñëpp amoon idée bi ba daanaka affaire bi dina élargir donc di sant bu baax di leen sant bu baax di leen gërëm merci beaucoup